awuzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yent bi ñu ngi ziare bu baax mboolem kilifa diine yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi yëpp waaye di jiital ci nuyoo boobu Sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ko fi lool waaye di ziare bu suñu borom guddal aw fanam yàggal ko fi lool waaye di ziare bu baax suñu sëriñ am lamp Fall daaru Pere. ñu koy ziare bu baax maam suñu borom yàggal ko fi lool ba lépp lu mu yéene liggéeyal maamam def ci lu kawe ci barke Sëñ Tuubaa Seexul Xadiim yaakaar naa tey jii nag ñu indi leen koo xamante ni daanaka du mat a présenté ndax ñu bari xam nañ ko ci fi nga xamante ni fi la dëkk mi kees di jànkatu xasaay bu mag boo xamante ni yaakaar naa ñu koy bàyyi xel bu baax a baax kon su ko defee rek mbokk yi nga xamante ni ñuy topp ci kër gi nga xamante ni mooy Faaida TV ci émission bi nga xamante ni mooy sama soppe tey gan googu mooy Serigne Ahmadou Niang koo xamante ne yaakaar naa ko dëgg yàlla taxawaayam ci xasaay yi am na solo lool kon su ko rek Serigne Ahmadou ñu lay bàyyi nga nuyoo rek du mbokk. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu asan lay siyaare bu baax a baax di siyaare mbooleem kuy seetaan émission bi rek ñaan suñu borom bokk na defal ñaan suñu borom guddal fanam te wéral jëram naal yi mu naal yëpp suñu borom àggale ko te mu ànd ko moom ak sëñ Tuuba ak sëñ jërëjëf jërëjëf sëñ Amadou wax dëgg yàlla nuyoo bi moom am na solo lool kon su ko defee rek yaakaar naa bala ñoo tàmbali waxtaan rek incha allah da ngeen ñu ibbil ay béytu xasaayid yu gàtt rek su ko defee ñu mën koo tijjee jotaay bi incha allah door a door a tàmbali waxtaan bi. auzu billahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin barke borom Tuubaa amdi wa sukuri liman kulli bi sara lawari dan liman kulli bi sara سرسارا لو صناي وردوان بلا سقة مسقد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لنا أمبار مكرمة من عدلنا وفي أجام منصارا سينا إلى سرسار خلق صدو سيارتي فارخو دارين أو سارا إن الذين إلى سرسار خلق صدو سيارتي فارخو دارين أو سارا jërëjëf sëriñ Amadou yaakaar naa dëgg yàlla ku ne xam na ni njàng bi tegu na ci yoon lool waaye dëgg yàlla jaar na yoon ci wax yàlla li nga indee béykat yi wax yàlla yaakaar naa seetlu na lool loolu ñu ci am mbégte baax a baax baax waaye yaakaar naa ku wax njàngum xasaayit rek nit ku ne bala ngaa tàbbi ci njàngum xasaayit yaakaar naa am na fooy fooy njëkk a jaar boo ni moo mooy mooy moo lay may a nga a yëngu ci xasaayit yi muy muy muy njàngum daara di alquran bëggoon a xam rek sëñ Amadou fan la tàmbalee njàngum alquran. waaw njàngum ñu ngi ko tàmbalee suñu keppaaru waajur muy bàyyi Flore Niang xam ne sëriñu daara la woon doon jàngale tey jàngale mm-hmm. yàlla dogal nag ñun ci daaraam lañ nekk mën na ne benn yoon rek lañu génn dem ci beneen daara te li ko waraloon mooy daa amoon tawat ci yaram ji mm-hmm. doon faju ji yëkkati ñu jox na ku ñuy wax sëñ waa daan ndox ndax yàlla dogalee suñu borom saafara lool ñu si waat ci loxo. waaw loolu yaakaar naa am na solo lool loolu dëgg yàlla lu lu kawe la dëgg yàlla ndax li am solo mooy maanaam sa waajur nekk ci lu baax di di nekk ci daara di di jàngale alxuraan dëgg yàlla ba ba nga ba nga ñëw yow wax dëgg yàlla tàbbi ci ay loxoom ba mu ba mu ba la ci loolu yaakaar naa loolu dëgg yàlla tawféex la tawféex yi sëriñ bi wax dëgg yàlla ndax yaakaar naa ku ne bëgg nga waajur boo xamante ni. bis booy dal baa moom moom moo lay dalal baa te loolu yaakaar naa lu kawe la sëriñ amul ñu bëggoon a xam rek maanaam ci daara jooju fa nga fa nga toog ba wàcc wala comme fa nga génn mos ci feneen waaw ci daara ji moom ci lañ defee ci leen àggale sunu ànd ak lépp mm-hmm. ci daara yi seen Moodu ñan kon nga sunu waajur moom Moodu la tudd mm-hmm. waaye kaan fóore da ko dab ci wàllum njàng maanaam ñi jàngale alxuraan xam nañ tur loolu moo waral ñu naan ko Kang Fourier. ndeysaan waaw di tur boo xamante nii wax dëgg yàlla daa jàng ba suñu borom dafa ko garaat boobu. Mm-hmm. waaw ñu ñu ngi koy ñaanal borom doole ko njëggal ak mm-hmm. ci barke Sëñ Tuubaa. ndeysaan loolu moom yaakaar naa moom solo lu mel ni tamit wax dëgg yàlla ku ne xam na ni Serigne Serigne Mor Niang am wax dëgg yàlla sa sa sa sa sa kilifa la waaye naa yéen a bokk yéen a bokk bàyyi. parce que yéen bi nga nekk ci daara yéen a nekk ci daara ñu am ginnaaw sëñ Modou nag moom xam naa damaa dikk fekk mu sama waa ji yóbbu ko kër sëñ Jóob hmm. mu àggalee fa àlluwaam hmm. ku ne xam na ne sëñ Jóob moo ko yar def ci moom lim lim def ci moom ci alxuraan jeeg xasida yeeg yëpp hmm. sëñ Jóob ko ko defal waaye nag bi mu amee waajuru mat waajuru ci la tàmbalee loolu yàlla dimbale ko nag ñu jëlaat ko teg ko ci loxol sëñ Jóoba Siise waaw ah, ba yàlla defal ko li mu ko defal waaw ah, muy jëmm ju baax yoo xam ne dëgg yàlla xasida yi moom luñ ci am rek mm-hmm. ñoo ko koy sante wax dëgg yàlla mm-hmm. ci ginnaaw la nekk ba léegi nii sax ci ginnaaw la nekk ah, loolu am solo ñu ngi ziare bu baax sëriñ Mbañ nag ko ñaanal suñu borom dundalal fanam yàggal ko lool ba li mu ci xasaayat yi mu def ci lu kere waaye di ziare bu baax sëriñ Baare Cissé wax dëgg yàlla moom it ko fàtte ginnaaw bu tuddee sëriñ Jóoba rek wax dëgg yàlla suñu xel yéen ñu yóbbu sëriñ Baare Cissé ñu koy ziar bu baax moom di ko ñaanal suñu borom wala ko kàttan waaye yàggal ko fi lool ba liggéey bi nga xamante ni moom la yéene ci taalibe yi suñu borom kattanal ko def ci lu kawe ci barke mu mel ne rek kon Serigne Moñ nag ci moom nga nga tàmbalee njàng xasaay ko. waaw njàng euh, mi nag daanaka dañ daan def kuréelu sikkar boo xam ne ci suñu keppaaru waajur lañ ko daan defee booba ngent demewul nii booba àll la woon rek. suñu kër rek a fa nekk ci kër ak ay benn benn kër. waaye nag su guddi àjjuma masaana jot sax papa danaan jël xéwal bu bëri jox mm-hmm. ñu toog ci at bi di sikkar ñun ñëpp. ba guddi gi sori ñu daal di ñaan demaat ba beneen guddi àjjuma. waaye nag bi sëñ Modou jógee daara nag moom lii di mm-hmm. yàlla dimbale na nag ñu laxasaa yu ànd ak moom fu muy dem rek noonu lañ dem. waaw ah, wax dëgg yàlla jox na ci cër boo xam ne wax dëgg yàlla ku ne. xam sëñ Modou xam suñ digganteek moom na diggante bu rafet mm-hmm. muy sama mag di sama xarit di sama lépp ndax li ma waral li waral ma am xarit la mooy mm-hmm. moom njëkk tuddee ndeysaan kon loolu ku la fonkul du la ko defal. loolu kay kay la wax dëgg yàlla dogal man mii tamit ma tuddee ko turandoo. ah loolu taw kon loolu lépp ak cant la. yàlla yàlla mottali yépp rek. amiin ak sëñ Tuubaa. loolu day wane ni wax dëgg yàlla ànd gi ngeen xamante ni yàlla boole leen ko ngeen koy ànd ci ci xasida yi loolu day firndeel wax dëgg yàlla loolu suñu borom defal na leen ci tawfeex bu baax a baax ndax yaakaar naa nit ki moom booy ànd ak moom ba mu xam ni yéen yi tuddee la doom rawatina ba doon ko xamante ni sax sa rakk la wax dëgg yàlla nga am yéen yi tuddee ko loolu loolu màgg la kon yaakaar naa yow xam naa ni am na loo ko wan lu tax wax dëgg yàlla mu mën a am yéene jooju ndax ku la gis xam ne wax dëgg yàlla ya bu baax nga koo xamante ni nit ñi xam nañ la bu baax ci yar waaye xam nañ la bu baax ci ay teggin nga doon koo xamante ne wax dëgg yàlla ko tegu ci yoon bi dëgg yàlla ñu koy seedeel bu baax mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel wax dëgg yàlla mu mel ni sëñ Mahmoud yaakaar naa njàngum xasaayit bari na ay ay façon ndax am na ñi nga xamante ni dañuy jàng di kuréel muy njàngum kuréel waaye njàngum rees ak njàngum aw ñu bëggoon a xam ne sëñ Mahmoud njàng yooyu xeeti njàng yooyu ban ban na ci maîtriser waaw ah, man nag yàlla dogal na ñaar yëpp laay boole léegi hmm. damay rajas damay njàng-njàng mu am hmm. yàlla dimbale ma tamit am naa ñu may àndal mu hmm. demee ne sëriñ Mbay Loo sëñ Mot Seck sëñ Maamul euh, Manta gars yu baax yooyu sëñ Maamul ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom sëñ Mot Jóob sëñ Abdou Mbaw ñoom ñëpp laxasaayu ànd man ngir sëñ Tuubaa ci xasida yi fu ñuy dem ñooy ànd am bokk sëñ Tuubaa rek tax waaw maa ngi leen di sant bu baax ndax émission bi bu ñu fi nekkee tamit dana baax ñu leeral suñu ànd ñu ànd bu rafet mm-hmm. ñu dem ba daayira bu mag sosu ci muy daayira sopp sëñ Fallou yàlla dogal jëwriñ ji di sëñ Seex Jóob mm-hmm. ànd koog ñoom sëñ Maydoo mm-hmm. man mii suñ borom dogal ma doon jànkatu daayira ba kon te loolu li ko waral mooy fasida yi rek moonu boole tax cër boobu ma am ko ca waaw loolu de yaakaar naa dëgg yàlla lu am solo la comme ko waxee woon sànq rek dëgg yàlla am na nooy nooy mel wax yàlla suñu borom dana la defal tawfeex joo xamante ni képp ku la boole te dëgg yàlla ànd boobu suñu borom dina ci def tawfeex ba du rëcc ndax loolu li koy maye mooy jikko ju rafet yaakaar naa dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee woon sànq rek loolu ñu koy seede bu baax a baax a waaye dëgg yàlla mu doon loo xamante ni am na solo muy wax dëgg yàlla li nga xamante ni yaa ngi koy yaa ngi koy taxawee ak koy tawee ca ngent wax dëgg yàlla ku ne xam na ni ndaw ñu bari comme ni nga ko waxoon rek ñu topp sa ginnaaw booy génn ñu ànd ak yow di jàngi dañu bëggoon xam ndax sëñ jamono yi ñu toll nii moom nu muy dundee yi nga xamante ni mi ngi ci réew mi en tant dëgg yàlla mbas mi nga xamante ni mi ngi ci réew mi maanaam tënk-tënk lu baree baree bare nan la koy nan la koy dundee waaw voilà sant yàlla rek xam na suñu borom ne xam ah, jànkat moom li ko jëm mooy jàng waxtu wi moom waxuma njàng mi rek waaye euh, lépp la laal waaw côté yëpp la tawat ji laal waaye nag suñu borom bi nga xam ne ko def ci àdduna daal mm-hmm. ñoo ngi mu yëkkatil nu ko dindil nu ko ci àdduna bi yëpp ba kenn na ko daan defee ci barke sëñ Tuubaa amin amin amin amin yàlla suñu borom defal na ci tawfeex wax dëgg yàlla ci weeru koor yi nga xamante ni moom la nekk muy weeru màgg ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa lépp loo xamante ni jaamu nañ ko ci yàlla na ko suñu borom nangu waaye yàlla na suñu borom ci yërmandeem ci weeru koor wi bis buy jeex rek yàlla na fi jëlewaale mbooleem jàngoro joo xamante ñu borom kon su ko defee rek suñu Ahmadu kon nga mayeen ci su ko defee ñu a bëggalaat mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi teewlu ci ci émission bi nga xamante ni mooy sama soppi ndax da ci am solo lool dëgg yàlla bu ñu dalalee ñi nga xam ni seen ni mel ni yéen wax dëgg yàlla di leen joxe day day day jaar ndax soppe yi tout le temps dañ koy bu baax a baax léegi bu ñu sañoon daal wax dëgg yàlla ñi ngeen dalal ñu ngi yëkkati xasaay bu baax a baax a baax a baax ndax mbégte lay doon ci ñoom wax dëgg yàlla kon su ko defee rek nga mayaat ñu tuuti rek su ko defee ñu bëggale ko xasida yi ñu bëggale ko soppe yi ne ñu ngi bàyyi xel ci kër gi nga xamante ni mooy Fayda TV yow yaa nu gën rasulallah sa baay ba moo di Abdalaay ñun sa xeet wi ñoo di ismulaay sala alayka wa salaam muhammad rasulillaay yow yaa nu gën rasulalaay sa baay ba moo di abdalaay ñun sa xeet wi ñoo di ismulaay sala alayka wa salaam ndayam jamoo di aminatin di sangi naari makkata yay daw marwata ak safa sala alayka wasalam muhammadu rasulillahi ndayam jamoo di aminatin di sanginaari makkata yay daw marwata ak safa sala alayka wasalam kuy anbiya mbaa nga di mursal ku jàq moo la xettale sala alayka wasalam kuy anbiya mbaa nga di mursal kuy xutbu mbaa da ngay wàlliwoo ku jàq moo la xettale sala alayka wasalam moo sawe maam ja adama muhammadu rasulalaay moo tax jinaan am njongama sala alayka wa sayduna muhammad yaa tax seexuna alxadim julli jigéen ñi di ko yéem yëkkam wa fàddu ne la siim boof ci kanamam jaalibatul maraaxibi la way nabee mi sangu fii ak fanu jam sala muhammad rasulallah ñun ñoo ngi ñaan nabi ak ahlu bayti ci kër nabi nee amiina ya rabbi ci barke Bamba jawrinam ñun ñoo ngi ñaan giseeg nabi ak ahlu bayti ci kër nabi nee amiina ya rabbi ci barke Bamba jawrinam addiye yonente si Amadou yi waaye wax dëgg yàlla waaye yaakaar naa neex na lool wax dëgg yàlla yaakaar naa wax dëgg yàlla mu ngi mel ni suñu fi ñu suñu xol sedd na lool wax dëgg yàlla ndax ni ngay ni nga woyee ci moom yaakaar naa lu am solo ñu bëgg na way way moom maanaam fan nga ko jëlee waaye neex lool waaw waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax Samsul Arif yi nga nii yàlla dogal na Cheikh Ablaye Dieye moo ko tagg ci yonente bi waaye nag ku ne xam na ni Cheikh Abdoulaye Dieye ni mu demee woon ak Serigne Mouhamadou Niang waaw doonu ñu woon ñaar kenn lañ lu mu mës taalif rek mm-hmm. sëñ Modou koy bind dëgg yàlla téere bi moom lañ ko mokkalee ku ne xam na ne sax sëñ Modou def na ko kaset naa ne loolu rek ànd gi nii ànd xam naa moo waral way ci loolu lañ ko jëlee. ndeysaan waaw ci samsul aarif boobu nga xam ne si àllaay. moo ko way yonente bi. waaw ñu ñaan baax suñu borom loolu ko leer ak njéggal. amiin mu doon jëmm yu baax joo xamante ne léppam sëñ Tuubaa la woon. amiin waaw jërëjëf jërëjëf yaakaar naa dëgg yàlla woy dëgg yàlla daaneel nañu lool wax dëgg yàlla ndax ni nga ko woyee dafa dafa neex lool macha allah waaye ñu bëggoon a xam wax dëgg yàlla sëñ Ahmadou jamono ji nga xamante ni fi ne nii ñu bari ñu ngi ñu ngi ndaw ñu bari ñu ngi dëgmal njàngum xasaay dugg ci njàngum xasaay ñu bëggoon a xam rek suñu amul tey naw ñoo ñi nga xamante te ñu ngi ñëw ci ginnaaw ñu ngi ñëw ci kanam war a war a war a war a dugg ci njàngum xasaay yi tey jii yan yan yan message nga leen nga leen di dolli nag loolu loolu leen di conseillé ndax wax dëgg yàlla gis na ni bari na ci ñoo xamante ni dañuy dañuy dañuy ñëw dugg ci njàngum xasaay yi te duñ war duñ jaar fan war a jaar ndax yaakaar naa comme ni nga te comme ni nga yow taxawaay bi nga am rek ni nga toppee sa mag sëñ Amadou Ñam sëñ sëñ euh, sëñ waaw waaye ni ko toppee ndeysaan di ko tarbiyu ci njàng mu doon loo xamante ni yaakaar naa lu am solo lu mel ne loolu dëgg yàlla bari na ñoo xamante ni dañ ko dañ ko sàggane loolu da ngay gis koo xamante ci xasaay a ko war a jàppee bu am solo loolu topp sama ko taalibi ko tarbiyu su ko defee mu yoon dëgg yàlla ba ni nga war a jariñoo ci xasida xasida yi nga xam ko bu baax a baax tey jii loolu loolu loolu ci conseil ndaw ñi xamante ne ñu ngi ñu ngi ñëw. waaw xasida yi de moom mbir la moo xam ne moom Euh, damay wax ne yoonu sëñ Tuubaa moom toppe mm-hmm. moo ci maye dara waaw euh, ndax koo gis rek daa topp ci ni mm-hmm. di Seex Ibra góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla noonu la demee rek waaw xasida yi nag mbir la mu yaatu moo xam ne sëñ Tuubaa mi ko bind mm-hmm. moom foofu te fëlawul waaw képp ku ci nekk rek doon ci mag tamit bàyyi xel ne am na ñu topp sa ginnaaw di ñëw nga yaatal leen ñoom tamit ñu ubbiku maanaam ubbiku boo xamante ni mooy déggal seen mag ñi hmm. ndax mbir moom hmm. loo gis rek dañ koy teg si yoon du ko teg si yoon waaw boo dee ndaw dugg ci xasida yi hmm. war koo ci gis def ko ni sa bopp waaye li a doy ñoo xam ne maanaam buñ la xasida yi ah, jàpp ne ñoo la jiitu ci xasida yi loo xam ne fekk ne yow ba ngay dee ci xasida yi yàgg na yàgg na lool wallaay nag yar ak teggin mooy lépp mooy lépp waaw lépp waaw wallaahi lépp looy dugg rek dëgg la eh, na nga ci am yar ak teggin waaw wallaahi loolu mooy waral la loo loo sóob rek suñu borom jàppale la ci dëgg la nga am ci lu kawe sa njort dëgg la yaakaar naa moom yar ak teggin sax wax dëgg yàlla lu may moom wax dëgg yàlla ndax yaakaar naa yoon yi moom dafa doon yoon boo xamante ni yoonu yoonu taalibe la maanaam lépp loo nekk rek maanaam nañ ci doxe ak taalibe bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo la ñoo la féete mag nga jox leen cër bu baax a baax waaye bandi xam nga bari na ci ñoo xamante ni bari leen yàqal mooy di di ndaw ñi loolu loolu dafa am solo loolu dafa mat a leeral ndax daraja dafa doon loo xamante ni boo ko sàkkoo rek mën na laa mbas te bu la mbasee bopp lool daraja kenn du ko sàkku da ngay bàyyi ba mu toog fekk see sax nga am neen noo xamante ni war nga ko cee sa bopp bu baax baax a baax waaye ndaw ñi dafa bari ñoo xamante ni maanaam da ngay gis loo xamante ni mën naa mokkal ñaari ñaari ñaari béytu xasaayit wala genn xasaayit rek di loo xamante ni wala nga romb sama taalibe di ko di ko jaay egg naa di egg eggul wala ngay def yoo xamante ni doo ko ko teg fenn te loolu du yoon wi yoon wi lépp ak taalibe la ki la mag da koy jox taalibe da nga ko jox cër bu baax a baax fonk ko dëgg yàlla ndax mag ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñoo sasna yoon wi fi noonu lañ ko sosee woon loolu yaakaar naa sëñ Ahmadu loolu loolu wax dëgg yàlla am solo kon su ko mu ni waxtu wi mi ngi mi ngi bëgg a tab bu baax a baax te yaakaar naa am na yeneen émission yoo xamante ne ñu ngi war a ñëw ci kanam kon su xam ne da ngay da loo ñu loo ñu tëjal rek incha allah su ko defee ñu mën a tàggatoo incha allah. waaw ah, ñu ngi sant bu baax ginnaaw bala noonu tëj. Mm-hmm. Ah, di sant xam ne wax dëgg yàlla sëñ Assane. Ah, yaa ngi soññi ngir ñu ñëw ci émission bi. Mm-hmm. xëy na jamono moo xawoon xat rek ci yu bëri. Mm-hmm. Eh, yàlla day dogal boo yoree liggéeyu jàmm. yu bëri di nga ko bëgg waaye day xaw xam hmm. nag amoon nga yéene ñu ñëw fi bu yàgg nag waaye nag yàlla mi nga xam ne mu koy doog a dogal daal hmm. yàlla na doon lay dimbale di si yàlla seen motaal baax moom tamit di hmm. jëmmal ko lii ku ko taxawal defal ko diine kenn amul sa fay am na suñu borom yokk ko waaw defal leen ci lu koy njort ndax ñun ñëpp benn lañ ndax man Madina gi magam moom fi njëkk indi ay jàng muy sëñ Modou Diop ñaar ay jàng yu mu doon fanaan te ginnaaw ko ba tey yàlla dogal am naa ko fi nag wax dëgg yàlla am naa fi ay xarit ak lépp di siyaare ko dem ne sëñ xaarim ko sëñ Massamba ñoom ñëpp siyaare nañ bu ko defee nu yëg di xasida ko gàtt rek tëjee ko incha allah ñaan suñu الله من كل كريم أكرم منام خاد له تكرم الله من كل كريم أكرم منام خاد له تكرم أسلم له كل كان إيماني ولازم الإحسان للرحمن واجب بسكر بلا كفران تربى إصابة مع النيران يالا نو يالا بيولك سيطان دبول نوك سيخ بامبا في الجنان يالا نو يالا بيولك سيطان mawlana Seex Bamba fil jinaani amina yaa rabbi ne amina ci darajay Muhammadul Amina amina yaa rabbi ne amina ci darajay Muhammadul Amina jërëjëf Serigne Ahmadou wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool ci wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xamante ni am nga ko wax dëgg yàlla di am mbégte ci wax dëgg yàlla woo gi la woo nga tagg sa yitte yëpp wax dëgg yàlla jógee ba ñett ñëw fekk suñu fii suñu télé bi nga xamante ni mooy Fayda TV wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom yàggal la fi waaye guddal sa fan lool wéral la bu baax a baax a baax li nga yéene ci jigéen Serigne Touba xasaay yi nga def ci lu kawe kawe kawe ci barki Serigne Touba Cheikh Khadim kon su ko defee rek mbokk yi tey ji loolu la leen andi loon bu ko defee ñu ngi ziare bu baax sëriñ Abdou Samad wax dëgg yàlla di ko xamante ni kilifa la di borom baax di ko xamante ni yaakaar naa dëgg yàlla ku teew ci palaasam di yàlla di yàlla defal loo xamante ni saa bu fi ñëwee rek suñu kanam yi leer wax dëgg yàlla bopp yi moo ñu moo ñuy wat wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziare bu baax di borom xam-xam na bokk ci ñi nga xamante ni dafa génn Al Azhar yaakaar naa lu bari lool loolu ñu bari xamuñu ko ci moom waaye dëgg yàlla borom xam la ñu koy ziare bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yokk ko guddaloo fanam yàggal ko fi lool waaye di ziare bu baax monsieur le président Serigne Babacar ñu koy ziare bu baax yaakaar naa wax dëgg yàlla ko xam ku ko gis xam ni am na taxawaay baax fii ci Madina Fall mi yàlla mu toog naa jël liste boo xamante ni wax dëgg yàlla ñu baree baree baree baree baree da leen a cité di leen di leen di leen envoyé envoyé xaalis yi ñu yoo xamante ni dañ koy soxal lool na lool loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal baax suñu borom yàggal ko fi man wax dëgg ba li nga xamante ni moom la bëgg ci social ak dimbalee suñu borom kàtt nan ko jox koy xéewal ba mu def ci lu kawe kawe kawe kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu